ñu ngi leen sant bu baax a baax euh, ndaje mi nag tey euh, gàmmug Badar moo ko waral ñu fi doon def euh, lu ñuy wax CLD gàmm gàmmug Badar ren di ci quarante sixième édition wala cent cent mille neuf cent vingt ak léegi donc am na téeméeri ak nangam téeméeri ak ñett yaakaar naa ci ren. Euh, muy loo xam ni kon lu ñu yàgg def la di bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njabootu xaadim rasul di ko taxawal euh, ci jiital alaaji sëriñ Gueye moo ko doon taxawal ba ak njabootam tey di ko taxawal sëriñ naa jiite ko yàlla na yàgg lool kon li dajale tey mooy waajal bis boobu nga xam ni ci la ñu jëm euh, muy tolloo ak le 3 wala le 4 ci weeru octobre bi nga xam ne ci la jëm incha allahu taala Euh, kon euh, daje woon ngir waxtaane bis bu toll noonu ak dayo bi li mu am service état yi nga xamante ni ñoo ñu dalal fii madame le préfet ci njiitalam muy wax dëgg yàlla jataay boo xam ne jataay bu am am solo la lépp loo xam ni état yaakaar na ni war na ko cee mën a def ci wàllu sécurité ndax xam nga fu am mbooloo di daje mbooloo mu toll noonu euh, aaje na sécurité sécurité bi nag ci wàllu yëpp la Euh, ñuy wax sécurité sécurité alimentaire sécurité euh, sanitaire euh, lu wàllu hygiène yooyu yëpp di ay aspects yoo xam ni mbirum état la ñoom ñi nga xam ne ñoo ko yor service élevage ñi ngi ni taxaw service eaux et forêt ñi ngi fi gendarmerie donc madame le préfet mu ngi fi moom tamit ñoom ñëpp kenn ku ci nekk engagement madame le le maire mu représentant wu monsieur le maire moom tamit mu ngi fi taxaw kon kenn ku ci nekk li nga xam ni moom moo ci moo doon sa wàll ci bis bi euh, jël nga ci engagement yu mat te am nañ ci yaakaar bu baax a baax li nga xam ni mooy yi ci ëpp solo ni ma ko waxee léegi moo di wàllu euh, mbooloo fu ñu daje dafay soxla euh, ñu man leen a ñu man leen a nekk teg ci ay conditions yu yu yu baax ñaareel ba it fii ñuy defee bis bi day barab boo xam ni maanaam dañ fi mbay activité bi fi ëpp solo mooy sàmm ak bay kon nit ñi bu ñu defee bis bi ba noppi ñi fi dëkk moom fi la ñuy des kon ñi fi ñëw dañoo war a yokk waaye waruñu fee wàññi dara kon lépp loo xam ni dafay dafay tax ba ñu mën leen a dimbali ci loola euh, moo tax service élevage nekk fii ñi nga xam ne eaux et forêts ñun dañuy defar du ñu yàq kon lépp loo xam ni dafay dafa leen di dimbali ci ñu mën a defar bis bi te du yàq dara Euh, loolu it moo waral seenu seenu teewaay fii euh, xam nga mbooloo fu ñu daje wàllu santé daf ci am solo ICP mu ngi taxaw ak euh, ICP bu Kër Madiop nga xam ni dafa ab absenté waaye moom moo ko représenté kon ñoo ñëpp kenn ku ci nekk ci wàllu wi nga wi nga xam ni moom nga moom nga yor li ci sa warugar xam nga ko te incha allahu taala am na yaakaar nan ko daan defee dinañ ko defee noonu Euh, ren nag mooy première euh, édition bi nga xam ne ci lañuy def euh, CLD bi waaye loolu dañ ko officialiser rek waaye terewul wa at mu jot lañ ci waroon a def kenn ku ci nekk ci li la concerne ko def am na service yoo xamante ne teewuñu fi te waroon nañ fi nekk waaye bu préfet teewee rek dafa mel ni mu teewal na ñëpp ndax kenn ku ci nekk la ko ca war incha allahu taala am nañ yaakaar bu baax a baax ne ci dina dina ko def muy waa senelek ndax xam nga fu mel noonu mbooloo mu toll noonu di fa daje. yàlla dogal na courant am na fa waaye nag euh, day am dëkk moom dafay màgg bu ko defee demande yi nga xam ni moom lañuy am ngir bëgg compteur yi gën a gën a gaaw yooyu yëpp ci la bokk euh, moom dina ko jottali ñi nga xam ne ñoo yor ñoo yor waa ñoo yor service boobu fu mbooloo nekk ndox dafa am solo ay forage ngi ñu wër ndox am na fa waaye ñu fexe ba euh, ndox moomu mu jàppandi ci fan yi nga xam ni moo jiitu gàmm gi Euh, courant bii jàppandi ci fan yi ko jiitu ak fan yi ko mujj cet gi cet gi nga xamante ni it moo war a am ci dëkk bi ñu fexe ba cet gi am saytu ko lu jiitu waaye it buñ gàmm ba noppi ñu bañ a bàyyee mbooloo mi euh, euh, la fa nekk ci ay ci mbalit waaye ñu defaraat ko ba mu kii yooyu yëpp it engagement la yoo xamante ni mairie bi jël na ko kon wax dëgg yàlla ñu satisfaction bu mag a mag lañu am ci jataay bi di leen di leen fàttali rek di fàttali ñëpp bis bu màgg boobu nga xam moom la ñuy defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, njabootuk sëriñ Touba di ko def euh, ñu koy taxawalee Badar euh, le 4 incha allahu taala muy gàmmuwaat bi bisu gàmm bi bu dellusee incha allahu taala kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di leen sant yéen ñi it ci jataay bi ak xam ngeen ni barab bi jegewul ngeen ñu fekk si ñu ci fu mel ni ngir yaatal ko kon cant gi fii lay tàmbalee. ba bisub gàmm ba ngeen fekk ñu fa incha allahu taala fii nag mel na nii lu lu lu lu sori te jege lool ndax diggante dëkk bi ak dakaar à peu kilomètres la ay yoon yu bari war na faa mën a ñëw fii ñu nekk muy Dingiraay digganteem ak tali bi euh, ci cinq six kilomètres lay toll euh, muy ceytu loolu xam nga te ñun suñu diggante ak Dingiraay mu ngi toll ci euh, à peu cinq six kilomètres nga xam ne digganteem ak tali bi dix kilomètres la euh, tey muy barab boo xam ni localité yi nga xam ne moo ko wër yaakaar naa loolu su su préfet sax moo ci gën a moo ci gën a mën a leeral waaye li li mu ëmb dafa bari dafa yaatu lool boo jógee tubaatul ba fii nga ba egsi fii diggante tubaatul ba ba Badar euh, ab matul trente kilomètres yoon a nga fa woo xam ni boo wàccee ci autoroute bi ba keroog nga egsi ci dëkk bi trente matul trente kilomètres te def nañu def nañu def nañu latérite bi ba daanaka euh, li ci des mooy rek ñu ñuulal ko euh, loolu wax dëgg yàlla sollicitation bu yàgg-yàgg la waaye nag dañ ko war a yeesal ndax impact bi muy am dafa yaatu lool waxuma sax Badar waaye ay village village village la moom mii di sous préfet euh, xam ndax ku ne lañ fi affecté waaye ki fi mujj affecté Dakar la dëkk donc bu xëyee di ñëw mënoon naa xëyee këram ñëw liggéey si wàññeekuwaat delluwaat këram waaye mënu ko ndax ndax yoon wi ni mu mel te diggante su gàtt la soo xamante ni bu ñu ko defaroon mu nekk lu taw feex diggante ngaay ba ba ba ngay egg Pekes ba romb ko jëm Kër Ngànna diggante boobu tamit euh, yéeme na lool lool loolu lu ñu si lu ñu si dimbali dimbali population bi la te loolu képp koo xamante ni moo fi nekk te jiite wax ne nañ ma jox ndomba tànk yaakaar naa ne loolu rek moo la tax a jóg dimbali population yi xëy na lii dama yaakaar ne am na ci ñoo xam ne jotuñu ci waaye buñ ndax li defar am na fi te eh, impact bi muy am dafa yaatu lool lool lool boo jugee Bambey ba keroog ngay dem ngaay yoon woowu nga xam ne ki jugee Kaolack jëm Saint-Louis foofu moo doon yoonam naturel yoon woowu bañ ko dalee jàmbat léegi léegi mu mat fanweer at wala ñeent fukki at di ko di ko wax di ko waxaat kon nag occasion la bi yu mel nii développement yii yii ñuy wax ni muy ay gàmmoo ki màggal ak yu mel noonu dafa bokk ci yi nga xam ni dafay développer localité yi mii yi muy nekk. kon occasion la ci ñun ñu fàttaliwaat képp koo xamante ne sa loxo jote na ci mën a mën ñoo dimbali ci ay yoon ci lii ñu wër barab yi ñu wër dina nekk lu lu lu waaw ñu ngi la koy fàttali daal euh, tey ñaan suñu borom kenn képp koo xamante ni dugal nga ci sa loxo ba lii sotti euh, lépp loo xam ni moom nga yéenewaat ci réew mi ak feneen fu mën di doon suñu borom jàppandal la ko waaye loolu daal soxla la boo xam ni euh, may nga ma tey ma waxal ko ñëpp. ñi fi maanaam ñi ñi ma fekke ñi ko fekke ak ñi ko fekke woon ñii gàmm si ak ñi gàmm siwul ñëpp ñetti yoon a ngi ni yoo xam ne ay yoon yu axial la euh, te li ci yéeme mooy ñaar yëpp ñaar yi ma wax mooy bi jógee tubaatul jëm si Baba Garage mooy dem gànn mooy dem kër ngànna moo jëm tubaa nga xam ne boo ko defaroon da ngay lijjanti circulation wu euh, yoonu màggalu tubaa mm. muy benn te moo gën a gàtt it fen fépp fu ñuy jàdd di fa jaar yoon wi moo gën a gàtt ndax da wàcc autoroute bi rek def euh, Baba garage Toubatul Baba garage Kër Ngana euh, yaa ngi yaa ngi daanaka Daaru Musi yoon wii di ngaay dafay yoon wu axial yoon wu yàgg-yàgg biñ ko xoolee ak léegi dig ñu defar ko yàgg na lool yaakaar naa nag ñu ngi ci waaye ñu ngi ñaan képp koo xam ne sa loxo jàpp na ci nga dimbali ñu ba yoon wi gën a gën a jàppandi waaye am na leneen lu ma bëggoon a fàttaliwaat Eh, kaaraange gi eh, mu ngi fi poste gendarmerie mu ngi fi eh, waaye xëy na éléments yi ñu am li ñu mën nag ñu ngi koy def waaye éléments yi ñu am néew nañ ci doole tuuti kon lu ñeen ci mën a jàppale dimbali leen dinañu dimbali bu baax a baax xaw ma fi nag post police waaye xaw ma nan la administration di fonctionner waaye daal képp koo xam ni yor nga mbirum sécurité te mën ñu see jàppale it loolu ndax fii problème bi ñu gën a am ñi fi dëkk mooy da ngay yor sa jur jigéen ci barab yi ñu nekk activité bi gënoon a jàpp ci moom dina bay waaye dina yor ak dina yor ak jur nga xam ni mooy nekk capitalam daanaka li muy denc dara léegi da ngay gis jigéen joo xam ne day yor ñaari bëy walla ñett di ko di ko sàmm ak sàmm ba mu nekk fanweer nit jaar fa ca ginnaaw yanu lépp te du am fu mu koy jooye nga xam ni euh, loolu problème la bu fi nekk Euh, kon nag euh, bu ñu yokkalee te ñi fi nekk ñu ngi góor góorgóorlu di ci waaye xam nga boo amee euh, brigade boo xam ne dafa nekk xëy na bu bu kenn ku ñett nit bu ñeent bu kenn ñetti équipe fenn fu nekk nit jaar fa te village yi ñu ëmb bu bari lool loolu dafay soxla ñun ñi nga xam ne xëy na loolu autorités yi duñ ko mën a waxee ni ñu koy waxee ñun waaye ñun population bi moo ñu fi taxatoo ndax kuy woo mbooloo ñu lay wuy si lépp luy seen soxla war naa nekk sa soxla yow loolu moom muy aspect sécurité bi aspect la bu am am solo boo xam ne war nañu ciy dimbali bu baax a baax. Nous avons organisé ce CLD pour la préparation du Gamou de Badar, euh, qui est une première édition. Euh, bien que le Gamou a duré plus de 46 ans, euh, c'est une première. Cela ne veut pas dire que le Gamou n'était pas aussi important, euh, mais parce que d'année en année, euh, le Gamou mobilise des milliers de personnes. le marabout de Dingira, de Badar avec euh, le chef de village ont jugé nécessaire d'organiser ce CLD. C'est là qu'ils nous ont saisis et nous avons jugé aussi nécessaire pour l'organisation de ce CLD pour pouvoir régler d'éventuels problèmes qui se posent chaque année, comme le problème de l'hygiène, le problème de, euh, de la Sénélec, de l'électricité, le problème de l'eau euh, et d'autres problèmes aussi qui, sont, qui ont été soulignés. Euh, par les représentants qui sont ici. Et vraiment, nous avons aussi euh, pris des décisions avec euh, les autorités, avec du moins les chefs de service qui sont là, comme le chef de service euh, des eaux et de service de l'élevage, le commandant de brigade qui est absent, pour vraiment parer à d'éventuels problèmes Bon, ralliement du village, bon, ça c'est un problème quand même, et c'est une vieille doléance dans l'arrondissement de Baba Garage. Mais sous peu de temps, ce sera, euh, une vieille, ce sera donc dans l'oubli. Parce qu'on a commencé euh, à la construction de la route. Si vous avez emprunté la route en venant ici, vous avez vu que c'est un chantier. Donc de Toubatoul à Kersambakan, Baba Garage, Kerngana, mais aussi de à Baba Garage, Meke Donc la route est en construction, bien que c'est une vieille doléance, mais avec aussi l'hivernage, euh, donc euh, il faut quand même des ralentissements, mais sous peu de temps, ce sera euh, un vieux souvenir. Le commandant de brigade qui est absent, nous allons le rendre compte donc, de, des problèmes qui ont été ici. je pense qu'il fera de son mieux euh, avec son équipe pour en tout cas parer à d'éventuels euh, problèmes qui pourront survenir lors du GAM. Mais aussi, nous tenons aussi à sensibiliser la population aussi, aussi de se tenir prêt. En tout cas, parce que lors des gamous, les gens ont tendance à laisser les maisons vides et tout sera lié vers donc, euh, le, le Alors qu'il faut aussi sécuriser les maisons. Parce que nous savons que nous sommes dans un arrondissement. Euh, le personnel n'est pas aussi suffisant au niveau de la brigade. Donc, il faudra aussi que les populations nous aident. Donc, eux aussi, à prendre leurs dispositions pour que lors du gamou, vraiment aussi qu'ils surveillent leur maison.